secret bi nak ci walu digënté la dox digënté ñaar ñi nga xamné dañuy bëggënté wala ñaar ñi nga xamné dañu nekk ci neegu sey wala nga bëgg nit bako tak wala bëgg sey ak mom waye nak li ci jott moy mooy way bi na nekk farata na nekk lu bax ndax mënuñu fe nekk né duñ joxé dara duñ joxé ben secret ndax ñu bër ñi ndax ñu bën ñu yàqal ñu bax ñi lool dëgg la waye tam mënuñu té itam ñu bëgg dimbalé ñi nga xamné ñu ngi ci ay jafe-jafe xamuñ fuñ jëm mënu ñoo dem ci sëriñ di ñaanlu amuñ moyen yi moo ñu ñëw di séddoo yeen li nga xam dañ koy def di ci gis ay résultats yo xam ne rabbil alamin motax ñu ñëmé ñëw di ko séddoo yeen kon way bi daan nekk lu baax bu ko defee ñun ñi nga xam ñoo leen ko jox ñu mën si am tuyaba sa kër bu ama ama am doole la ta am solo ndax def naa ko defeti ko kon lu ma leen di jox xam naa lan la ginnaaw loolu ñi nga xam ne ñu ngi bëgg def istixaara di seetlu seet ay mbir yow mi bëgg xam say mbir lu ci nekk yépp ba nga seetlu sa yëf wala sa mbiru bopp wala jëm lu jëm si wàllu euh, digënté wala lu jëm si wàllu euh, bidiw sa bidiw ak ki ngay bëggante wala ki ngay seel ak soxla bu mënti doon ak mbir bu la mën a lent sa xel nga bëgg ñu xoolal la ko buñ déggante incha allah mën nga ñu woo wala nga yónnee ñu message ci whatsapp bi si 76 605 63 19 am na whatsapp ñaareel nag maa ngi jégalu ñi nga xam ne parfois day ma oo du ma jot wala ñii dama yónnee message may yéex a tontu waaye ngeen jégal ñu rek te xam ne lii dafañ ko liggéey parfois dañuy fekk si leneen dégg nga dañuy nekk si yeneen yitte waaw kon ku ñu oo jotuñu rek wala mu ñu nañu message ñu yokk tont rek ngeen jéggal ñu kon euh, mbir mi mi ngi noonu euh, lii nii ngeen gis nii lu may expliquer la rek dama si jàll ndax lii ngeen gis dañ koy liggéey si anam boo xam ne wàllu dëddale la bu fekkee dañ laa dëddaleeg nit su lu gaaw a gaaw a gaaw lii da koy dindi te dëddale bëri na si jamono ji bu fekkee ne da ngay bañ tam ñu dëddale la ak nit moo xam nit la koy bëgganteel wala koy sëyal wala koy nekkal wala sa xarit wala nangam wala ku mënti doon même si waajur sax dañ lay dëddale ak moom lii nii day dindi dëddale su lu gaaw a gaaw si tarafatul ayni da koy dindi gis nga dañ ko liggéey lii lu mystique la lu lu yéeme la dégg nga dëddale dañ ko siy dindi su lu gaaw a gaaw a gaaw a gaaw a gaaw xam naa dina am benn vidéo boo xam dinaa si ñëw gën see yaatal si mbir mi ak dëddale lu mu rëy rëy rëy gàllaay bi ñu ko mënti def dëddale la ak nit day dañ si saa si te da ngeen àndaat bu fekkee ne da nekk di nekk ak nit ki moo xam ngeen di sëy wala ngeen di ànd bañ dëdd la am seen diggante ndaxte day am da ngay xëy nekk ak nit rek mu xëy xëy rek wala ginnaaw da ngay nekk nit mu xëy xëy rek soppeeku xam la moo ko waral lii nag moom bu ñu ko liggéeyee bu soobee yàlla incha allah rabi si kàttanu yàlla day dañ ba set wecc ak lu ñu si mën ci def ak diggante bu ko ko mën a def day dañ ba set wecc nit ñi léegi dañoo doy waar loolu nag dinaa si ñëw si beneen fànn waaye tey secret bi ma tax a jug pour jox leen ko. Euh, mi ngi ñëw seen écran maa ko expliqué ba mu leer waaw euh, moo nekk noonu bu ko defee lii ngeen di bind li ne ci kaw du ngeen ko bind naa leen expliqué li nga war a def mais jël sa bëgg sa feuille sa big feutre nga bind yaa waduudu yaa waduudu yaa waduudu nga bind ko 41 fois yaa waduudu nga bind ka ànd na yàqutu wal marjaan boobu ngeen koy bind 7 fois <coughs> ngeen baal ma boobu 7 fois ngeen koy bind su ko defee xaatim bi. xaatim bii nii ngeen gis ni si digg bi benn yoon nga koy bind mais xaatim bi soo ko ba pare fi ma def euh, rajul ak maratu foofu yow doo fa def doo ko bind ak maratu boobu doo ko bind maanaam yow mi bëgg bind sa tur si kaw ak sa sant ki nga bëgg nga bind turam si suuf ak santam waaye tur yi day jàkkaarloo comme ni ma ko bindee noonu tur yi day jàkkaarloo su ko defee nag soo paree nga tëjee ko ak allahuma salli ala sayyidina muhammad euh, wala alihi wa sahbi wa sallam su ko defee nga def ko saafara si ndox mu yem dégg nga lii seul mu rek la da si mu boo xëyee di si sëlmu balaa ngay tëdd mën nga ko def diiru weer wala diiru semaine wala ñaari semaine ndaxte nekkul loo xam ne dafa am app da nga koy def rek këram yu jeex dégg nga bi si topp tam mooy bu fekkee ne mën nga waxtu julli boo jullee nag maanaam nga wirda yaa wadudu yaa wadudu yaa wadudu 41 fois ñaan li nga bëgg yépp yaa xam li nga bëgg sa diggante boobu noonu nga ñaan ko si incha allah su ko defee si diir bu gàtt gàtt gàtt ndax ñi ma koy defee ñëpp du yàgg ak jafe-jafe bu ñu mënti am si wàllu diggante du yàgg dara nga gis ñu am si xol bu sedd guy kon def leen ko si anam bu rafet ñu ngi yem fii bu subaa jàmm incha allah yal yàlla yàlla ñu sàmm ñu ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu